actualité ci communauté Mouride ak chaîne di Daaru Minane. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. mbokk yi mbokki taalibe yi mbokki jullit yi leen ziare ci waxtu wi ñu toll waxtu wi nag dafa laaj waxtaan waaye waxtaan bi nag mooy addiinu nasiha boobu rek la jëm li fi xew démb ci guddi ñu yëgal ma ko fa saasa ci mbetteel gi joxe naa ci ay kàddu joxoon digal ne ñëpp dal te dellu seeni kër te ne teg suba ma ba ma xam lii fu mu jógee ak nu mu demee bi mu xamee fi mu jóge nag ak ni mu deme euh, dal naan na xam ne lépp nag ci ñàkk xam la jóge ndax dëkk bu sell bi ku fi nekk te xamoo ki fi nekk xamoo lim fi bàyyi neex man nga ko fee nekkee waaye loolu nag kon nun ñi fi nekk war nañoo dellu ci suñu bopp seetaat bu baax euh, sunu nekkin euh, ci barab bu sell bii feetu ku baax ku sell kii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 kon bu amee ñu xamul laaj na itam nag kon ñu xambal leen nañu xam ne dëkk bi dëkk bu sel la ndax sëriñ bi bi muy jógal boppam dugg àll bi ba agsi fii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 bëgg fee nekk di yàq loolu ñi xam ñi fi nekk duñ ko mën a seetaan kon dëkk bi ñi fi nekk te xamuñu nekk feeg ñàkk xam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 bëgg bëgg bëgg a bëgg aar bi ci loolu waaye yàq gii nag day yàqute gu rëy xam ne moo gën a metti yàqute yooyu kon nag eh, ku fi nekk te sa nekkul ci loolu yàqu ak yàq ak yàq ak yàq il faut wax ak yow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 jéem a jox dëkk bi xormaam ji nga ko war a ji mu yellool ji nga ko war a jox yàqu yàq yàq démb gi moom xëy na yàq yu bari mën na am yàgg na fi am mën na fa loolu ci ni yàlla binde dooy dig doomu aadama waaye nag jóg di yàq te ne maa tey loolu kooku moom du luñ mën a seetaan ndax maa tey rek la ndax weddi baatu kilifa loolu maa tey la te loolu luñ mën a faj la nit ku amul kilifa moom lu ko neex def waaye lu neex ku mën a doon mën na ko ko def li ci am solo daal moo di ñu góorgóorlu fas yéene dooni taalibe di jéem a yor jikkoy taalibe di jéem a jox la yey ci am kilifa nga jéem a yooyu ci kilifteef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 borom aar na ko kenn mënu ko yàq man nga yàqu ci àll ba ñëw di yàq waaye kenn mënu ko yàq waaye nag lu xam-xam ne kenn mënu ko yàq itam ki ñu xam ne euh, ci ci ci yàqutam la fi indi nekk fe di yàq kooku kooku il faut que dañ koy jëflanteeg moom lu yomb la lu yomb la. ndax ni ma ko junjoo biig ne ku bëgg jariñu ku fi ci bëgg jariñu tey ëllëg dañuy xool ci man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 noonu ma ko waxee ku ko def xool ma te déglu ma da am tawfeex joo mën a jëriñoo ci adduna ak ci ndax man gisuma dara sëriñ bi rek laa gis te sëriñ bi borom moo ci jëfe sañ-sañam lépp lu baax luñ mën a yoo mën a jëriñoo ci adduna wala ñu mën mën koo jëriñoo ci àllaaxira lépp ngi sëriñ bi kon nag bu amee tawfeex ndax xamul lu ko may waaye am nañ tawfeex loolu ñi ma ko bokkal xam nañ ko kon nag nañu xam ne barab bii du lu mën a xool mukk ku indi yàquteem di yàq loolu duñ ko nangu mukk nag du dara ndax mënu fa buñ leen bàyyi woon sax mënu fa yàq dara waxum waaye nag duñ leen bàyyi ndax ndax fok faut ñu def suñu wartif sàmm nu war nekk ci li ñu fi war a bàyyee nekkal ko fi loolu mooy suñu wartif kon du nangu mukk jóge ci foo foo mën a foo mën a jóge ñëw nekk fi ne la neex waxuma laa di àgg ci maa tey loolu du mën a nekk kon nag euh, euh, noonu la demee manis na koo wax waxin bu gën a woyof ndax ku xas dugg ci dëkk bi rek am nga am nga am nga am am am nga xéwal ba noppi ndax dëkk bi wax ju tedd ja manees na manees naa jëm dëkk bi ak lu fi dugg manees nu ko dugal foofa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 ñoom ñi nga xam ne suñu boobu moo leen dénk sañ-sañu adduna bi seen seen seen seen seen seen seen seen xel seen xel seen xam rek lañ mën a jëfe te fii ñu ko fii lii ñu santaane loolu loolu gisuñu leen ñoom loolu mooy seen pexe xamuñu amuñu ñu pexe loolu lañ gis te jubluwu ci dara lu nit ñi mucc waaye foofu la seen xel toll foofu la seen pexe toll te ñoom ñi adduna bépp ci marché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 di defe maa tey di wax lu leen neex def lu leen neex loolu dana dana il faut loolu moom loolu xew-xew la il faut mu jógenu kaw loolu nag la ko andi moom il faut nu jéem koo xam te daal ko jéem a faj te lu yomb la ndax nit ku ci dëgg yomb naa yomb na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 kon li may wut rek laa leen di mën a won ñu bu baax ba lu mel ne li xew démb yem ci la jëkke waaye na fi mujj na ci mujj lu ci ko moy nag daan ci jëfee zaahir daan ci daan ci jëfee baatin baatin bi lu yomb la moom dëkk bi ku nekk nekk fi lu lu lu nekkoo fi lu neex Sëñ Tuubaa loolu la koy faj moom yomb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 ñoom it ñu fi nekk ñoom it ñoom nit ñi la ñuy wut mënuñoo ñàkk nit ñi loolu ana ciy pexe lañ ci xam ci pexe moom ñu dem jéem ko def def ko seen kanam lañ ci xam ci mooy jéemoon sëriñ bi génn ci lim nekk loolu du xalaat ak jéem ko fa jële loolu it yàlla boromam moo ànd ak moom mënuñ ci dara loola dem ba agsi fii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 saa si rek fi nekk saa si nag ku ku ku sa xel nekk ci dëkk bi na nga na nga jéem a góorgóorlu ba xam àq dëkk bi nga nekk fi nga jox akk dëkk dëkk bi nga jox ko àqam jox ko orma ngir ormay sëriñ bi mi fi nekk ku ko def alhamdulilahi rabbil alamin li ñu bëgg suñu bopp rek lañ leen bëgg ku ko deful nag il faut que ñu diggale koog yow waaw li fi am dëkk li fi am dim dim moom na fi yem maa maa nag ala kulli haal noog ñooma noog ñooma bu ñu seede dëgg la euh, bi metti na waaye adduna ño adduna bépp ko bokk ci aw ma fu ma fu ma jëlee ma fu ma naan dëgg la metti loolu yàlla moo yor jaam bu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 buñ ne tekk rek buntu feeñ waaw ndax nit eh, nit nit ku nit mbooloo moo xam ne amuñu fu ñu amuñu fu ñu jëm ñu lekk amuñu lu ñu naan loolu itam boroom xel yi ñoom waaye borom xel lañu borom xam-xam lañu nit ñi ci mooy loolu dañ koy gis te buñ ko gisee dañ sàkk fexe waaye nag jërul jërul jërul ñu ñaaw di di di sàkk di fajal suñu bopp te mënul suñu bopp dara. noonu rek la demee. noonu rek la demee kon nañu góorgóorlu bu baax delluwaat ci sëriñ bi loolu mooy delluwaat ci yàlla góor a góor fas yéene góorgóorlu gën fas yéene a mën a nekk ci li war li leen war a nekk noonu rek la demee amul du dara xew àdduna nii la basa demee naka jekk naka jekk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 nit ñi day day bañ gis ne nit ñi amatu amatu amatuñ fuñ jëm amatu amuñu amuñu luñ nekk amuñu naan daañ daañu jóg daañu daañu sàkk pexe loolu ginnaaw loolu ak sañ foofu la ko amul solo loolu moom nan bu nan ne tekk nañ ne tekk nan muñ rek ne ne tekk waaw ndax ñoo ñoo yor baatu baatu baatu adduna yi moom yàlla leen ko dox ñoo mën ko dénk kon fu ñu toll rek in faut ñu toll fa ak ñoom nun kay nan tal nan tal nan tal nan tal suñu bopp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 nañ ko doyloo nañu góorgóorlu delloo suñu bopp du ñu yàqal dara dara yedduna du ñu ko yàqal xanaa dañu koy defaral kay barkeeloon ko waaye nag balaa loolu amit dafa day dool day day wér il faut il faut que ñu dellu ñu dellu suñu delloo ko yàlla loolu mooy mooy mooy suñ suñ suñu lépp teg ko ci loxo sëriñ bi loolu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 la jëlul kenn ñu ngi ci lañ war nekk te loolu moom ñoo ëpp ci mbooloo mi ay benn benn rek moo bu degee ba day daal di doon mbooloo mu yàq kat yàq kat moom de de de de des koy faj duñu duñu yàqu yàquñu dara ndax euh, ndax na sëñ bi moom moom lépp noppi na ci defar na lépp bàyyi na fi. Euh,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 waaw loolu it alhamdulilahi rabil alamina nit nit xëyut sotti waa nag alhamdulilahi rabil na am na tawféex ba ba ma ba ba mu yóbbu ma foofu lu baax rek la bëgg bëggatuma da bëgguma dara waaw tey li ma ko bëggee ni ma ko ni ma ko bëggee dinaa ko yéene jàmm ñëpp rawatina nag njabootu Sëñ Tuubaa njabootu rawatina ne njaboot taalibe Sëñ Tuubaa ah, rawatina goo xam ne sa xol Sëñ Tuubaa ja nekk ci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 ñëpp li ma bëgg sama bopp rek laa leen bëggal waaw li ma yéene sama bopp rek laa leen yéene sa yàlla ko defee noonu yàlla moo moo ko tëralee noonu waaw wu yoon wii moo jëm ca mbaax bàjj na yoon wii mooy safaan ba war a xam daal di jóg teel ci jóg ca teel góorgóorlu ci kem kàttan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 soo leen bëggee abonné ci bu mag bii di académie minan dem nen YouTube bind daaru minan ngir nag nga abonné